allo waaw. Eh, Koulibaly Koulibaly Koulibaly <laughs> Koulibaly alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant bu baax. gétt gi waaw ah, ñu ngi ci kaw mi ngi dox mi ngi sans sans maa am na day wax dëgg yàlla wallaay wallaay Koulibaly ñaata. ah loolu bariwul <laughs> loolu bariwul <laughs> loolu mu ngi fi Koulibaly baax na Koulibaly jërëjëf jërëjëf Koulibaly jërëjëf. Njool. Njool. Hmm. mooy yow. yaa ngi numéro Koulibaly. Koulibaly waaw maa ngi numéro. dama nga envoyé ma ko léegi orange money si ñaar fukki junni. gaawal tuuti da ko soxla gaawal. xaalis wàññi la tudd. benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk noonu la. la la la la la la la la ndekki bi laa andi woon. man ndax jarat may ndekki ci àdduna. ah. yaa mën a commandé ndékki bi kay ba ma def ko. fi mu ne nii bëggoon naa ñu waxtaan tuuti. waxtaan waaw kon xaaral ma jël chaise bi ñëw. ana njool daa génn sax moo ko yónnoon jël chaise. Euh, soxna si. Euh, dama bëggoon def dépôt. waaw cent waaw ok d'accord. ok dem na sëñ bi mën nga ko woo vérifier dugg na ci comptable. dem na. waaw dem na. li gaaw na di. orange money rek dafa efficace. da ngaa sax nag. waaw parce que eh, instant yi émotion laay demee. émotion damaa nekk ci émotion. Mm. bëgg na nga sant yàlla. ah loo santoon dolli ko. alhamdulilah rabil alamin xam na ku yàgg ci teen baag fekk la fa. olof Ndiaye de moo ko wax. dafa am kilifa gu mag gu war a ñëw fii ci sama gétt gi. ah. ku ñëpp ràññee ko koo xamante ne nii ku ne bëggoon nga mu ñëw sa gétt mu aj ñëpp na ma waaju baax ma ne ko naam mënuma sa gétt laa ñëw jënd fa cinquante xar joxe ko sarax gétt bii rek la choisir gii moo tax waa Ndiaye ma kooku kan la war a doon nag tour surprise la te nag loo ci xamul ah. yéen ñaar kiif kiif ba ci musóor yéeg dentiste bi jaaru cong longol yeeg xajam gi ngay wax sax mi ngi ci moom da ngay wax ah! <laughs> tey kooku kan la war a doon moom buy ñëw ma ne damay tàgg tagalu ñëw toog. Sénégal ku fi dàq tagalu te buy wax wax ja tey te xol ba rafet ko kan la. quoi Songe. Mm-hmm. ubbi compte Orange Money. xanaa war na metti de. non mosul metti. Ah. ubbi compte Orange Money kese. sa ah. carte d'identité ngay indi ñëw ñu ubbil la. te li ci gën a neex mooy boo ubbee sa compte mën nga recevoir ba deux cent mille par mois. boo déplafonné nag ba deux millions. Eh! Ah, waaw bëgg nga orange orange ba orange moo ne rek kenn du ah, eh, ma ah. dièse cent quarante quatre dièse ca kaw waa kii ku mu war a ba tey njool lu ba may ñawlu non première dame ah mooy ñëw ci gétt gi waa ni lu la waxoo ma première dame la. bëgg balaa naroon na bett moom kay moo gaa wax rek waaye oh. ah. na bu ñëwee yow yaa koy njëkk njëkkati po bouquet de fleur ko. ma def sa délégation sax oh, la ilaha illallah première dame. may ma may ma njool may ma allo. yaa booy. Fall Fall Ndiaga Yaaram ah. ah yaay ne yaay rabbil alamin jamono jii may wax ak de maa ngi nii toog ci géttu waaju baax Marième fay Sall moo fi waaj a ñëw dindil batterie dindil dindil waa nijaay lii nag dindil batterie dindil batterie loo ci woo sa yaay looy wax looy wax sa yaay laa xamul lan la Marième fay Sall day ñëw ci gétt gi loo wax sa yaay waaju baax bu Marième fay Sall di ñëw te sama yaay am problème social du ma ko ko wax bu doon day yem sa yaay ma mën a wax mais sa yaay daa jiite mbootaay da dem ca mbootaay ba daal laay lay la laa sama doom ja yow Marème Faye Sall da koy gën a si ca gerte ga ma xam sa yaay bu doon day noppi sax sa yaay du silencieux dindil vocal bi nga envoyé sa yaay hmm. appel boobu xamal ba man man man nga gis kan laa wax man waxuma ko kenn moom rek laa ko wax moom rek moom rek laa ko wax man laa ko moom rek laa ko wax moo ko kenn ma nga ca Mozambique kenn kaa nga ca Mauritanie ñaar kese laa ko wax te pourtant maa ngi ay ami <laughs> maa ngi vingt ami yoo xamante ne officiel lañu te ñooñu samay xarit lañu. kon wax ji egg na ba ci oldu taaya. ah. Marème Faye wax ji egg na ba ci oldu taaya. ñooñu samay copain lañu samay xarit lañu. xarit bi bu ma jaay ko rek te toog dootu ñëw bu leen bàyyi. pi phrase ñoom xumaan bamba ji faal. bu leen bàyyi nga xam ne duñ tabaski. yow ma wanteer leen ko rek. njool. bàyyi jooyi. wal sa yaay. comme siiw na. wal sa yaay. wal sa yaay. nañ ferandoo rek fenn nañ fa ferandoo ñëpp nañ ferandoo ko Jusqu'à la Tabaski, tentez de gagner chaque jour par tirage au sort 7 moutons et 7 gazinières pour tout retrait d'argent. Transfert avec code Transfert vers la sous-région ou réception RIA avec Orange Monnaie. Nos partenaires distributeurs pourront également participer à la tombola et profiter des xéewal. Orange Monnaie ànd ak yéen tabaski bi gën a xéewale gën a yomb gën a neex si ñëpp si jees 144 jees Orange Monnaie moom rek la maa si seen application Orange Monnaie. Orange Monnaie est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange.